Euh, tey damay xoolaat un peu l'actualité mhm. ma gis ne euh, dernière réaction bi nga def c'était quand mbay Ndiaye a fait une sortie mhm. pour déclarer euh, de, manière cavalière que euh, mhm. am na droit euh, def deuxième quinquennat Mm-hmm. nga defoon une sortie pour diir que euh, boo jegee njiitu réew mm-hmm. euh, jege bi nga ko jege mm-hmm. amuloo droit di jël yenn opposition yi euh, mais waxoo ne am na ci droit ñàkkoo wax ne amu ci droit j'ai remarqué que concernant le débat sur la sur le mandat sur cette troisième candidature sori woo ci alors de deux choses l'une est-ce que da nga xamoon ne Macky Sall du ko def fasul yéene bi wala est-ce que da nga ci d'accordul woon non parce que li tax sorewuma ci woon loolu leer na euh, ñu bare su ma nee ñu bare lu ñi nga xam ne dama bokk ak ñoom euh, keppaaru président Macky Sall su ma nee keppaaru président Macky Sall mooy euh, li ko li ko dar dend ko ànd ak moom tamit bokk ak ñoom kuréel gu am solo bu ñuy wax secrétariat exécutif national te xam nga ne mën li ñuy wax mënoo mënoo joxe lii rocc lële donc di ñu toog ci kuréel boobu ak yeneen ndaje yu ñu am yu gën a res yu gën a restreint wàññeeku moom mii suñu kilifa jox ñu ndo ndigal nit ñi nii laa bëgg ngeen taxawee mbir mi bu leen ci wax mais loolu terewul ni kenn ku si nekk soo wéeteeg moom mën nga ko laaj soit mu tànqamlu la soit mu junj la parce que junj dooy na boroom xalaat soit mu tànqamlu la donc euh, sorti boobu loolu la woon parce que moment boobu loolu moom moo doon taxawaayam te taxawaayam boobu daf ñu ko wax donc xam man li mun d'accord mooy nga wéeteeg sa kilifa wala wéeteeg sa xarit wala wéeteeg sa àndandoo ngeen définir benn euh, démarche ci foofu soo ci d'accordul mën nga ko wax ba ngeen waxtaan ci peut-être ba mu convaincre la mais daanaka suñu toogee ba mu ni démarche bi laa bëgg te ni mu ko waxee du mbiru dictature du mbiru euh, lu mu imposer ba ñu d'accord ci ni li gën mooy loolu donc suñu génnaatee rek ah wax day indi jiixi jaaxa day indi lenn loo xam ni aussi peut-être soo ànd nit da nga da ngay def aussi li nga xam ni Euh, moo ko gënal arrangé na ko daf koy indil jafe-jafe parce que tamit parti bi bari nañu mais am na si euh, koo xam ne day wax ñu ne daf ko taataan mais am na ñoo xam ne ñuy wax ñu ni kii Macky moo wax ak moom parce que histoire bi noonu la demee seen jaar-jaar noonu la demee seen proximité noonu la demee ba nga xam ne parti bi kenn ñi ànd ak Macky ah du ci n'importe qui kenn ñoom ñëpp ku ci am jaar-jaar nga ci politique jaar-jaar nga ci foo xam ne sénégalais xam nañu mais euh, fépp la am même ci biir famille per de famille mère de famille dafa am ñoo xam ni jege nañ la benn peeru jege boo xam ne comportement bu ñu am di ñii ni diñ koy lëngaleeg yow mais am na ñeneen ñoo xam tamit dañuy wax rek ñu ne daf ko for daf ko for donc yow jàppoon nga ne euh, boo ci yëyoon yàbbi mhm. mënoon na indi davantage de la confusion mënoon nañu jàpp ne xëy na euh, loolu la seen kilifa gi xalaat ci wér kooku ci biir parti bi sax lay commencé parti bi sax restaurant mën naa ne sama biir famille sax laa commencé su ma ñëwoon ci émission wax yenn wax yi dañuy ni dañ ko wax loo ki ko wax loo du ñu bare président moo moo ko wax loo euh, loolu aw ma ci woon aw ma ci woon du woon sama cër d'autant plus que comme su ma ko waxee ñu bare jaaxal na dama ci mosul woon wax ak kilifa gi président ba mu wax ma lu ma doy ba mu wax ma loo xam ne leer day na si mën naa ko jàpp il est resté dans l'ambiguïté peut-être pas l'ambiguïté benn ñaar ñett ñeent juróom soñu nga ko mu indi beneen wax beneen mais comme ni ma ko waxee euh, peut-être ba mu jotee mu ma koy wax mooy ci ndaje boobu pare waxuma ko si sujet verbe complément mu leer mais ni toogee diir bi ñu toog ak daf bi mu ma jaxee moom macha allah yàlla la ko may ni ma jaxee cest à bi ñu toogee loo xam ni soreetul waxtu ah ba ma génn laa mën ni laa doog a commencé di xalaat ci ni xalaate noonu ne en fait wax na ak man sans pour autant wax ak man lu leer mais xam naa mais terewul loolu xam nga loolu may mun a euh, ci circonstances yooyu mu demee di nga jaxasoo ah dinga xalaat mais terewul je pense su ma fàttali ko ma def ci confidence ak kenn ni wax ak naa moom ah ci ni ma ko xamee ak ni muy waxee ah donc jox na ma ay ay ay ay piste mais loolu mu ngi woon sama biir euh, xel mi ngi woon sama biir xol ba nga xam ni mu jël décision bi jour bi mu euh, bi nga xamee ne parce que je pense que même bien avant soo toogee léegi di xalaataat même bien avant président Macky Sall euh, jox nañu ay firnde soo xalaataatee bu baax bu baax a baax nga xam ko ni mu mel. bi wax yow Paris c'était ah, ban moom ban moom ban mois. non mais temps mooy. bi ñu defee sommet bi sommet. nan nan lan la la wax lu jàpp ne. Mm-hmm. même s'il ne vous l'a pas dit de manière explicite. Mm-hmm. Euh, yow ci nga def am sa religion que il va pas y aller. bind naa ko xam nga soo ñëwee nit mu lay wax ni on amuñu benn raison ñuy sëgg am nañu raison siggi ah parce que liñ fi def ah, mën nañ ko bàkkoo même su fekkee doyul parce que ki am te mën di def muy doy mooy yàlla bi ñu sàkk ñu doomu aadama kenn mësul def kenn mënoo def lépp li nga li li nit ñi di xalaat yow donc c'est-à-dire c'était un discours boo xam ne c'était pas c'était pas le Macky politique ah ba nga xam ni il est à lui quelqu'un boo xam ni mën na ko xoolal di ko soññ mën na ko jox directive mën na ko teg yoon c'est-à-dire c'était un discours plutôt ah philosophique qui parlait aussi d'être de l'être mais qui parle de nos devoirs bi gën a sacré ah mooy toppatoo suñu njaboot ah toppatoo sàmm mbiru xarit ah donc voilà te bañ ke àdduna fu la fekk rek ah mel ni pajaas yóbbu la fu la am am fekk fu la alal fekk fu la tamit xam nga nit parfois nga toog tour bett la nga siiw bu mu la wet toujours d'être d'être sur terre xam nga bon xam nga du cinq minutes wala juróom minutes mais soo toogee par exemple koo xam presque quarante cinq minutes mu lay wax boo xam tamit gëju la wax peut-être noonu parce que dafa la jàppee rek toujours di la teg ci yoon mais gëj na trop mu waxee la noonu wax. wax bi dafa dafa sori te dafa enjambé dafa dafa enjambé. waaw euh, les questions de de de de mandat. de combat politique. c'est un discours sur la vie affaire bi man. def na impact bi nga xam ne si moom donc fi mu nekkoon jour boobu daf ci waroon dem gisi naataangoom bu France mooy Macron man bi ma génnee j'étais tellement sonné mooy wax bi nga xam ne dama toog ci restaurant bi foofu di naan ndox di kafe di naan kafe mais moom bi mu génnee bi ma génn gis ma taxaw reetaan ma def ma nii mais daanaka génn naa presque ay quatre heures mois ba vingt heures maa ngi toog sur place donc film yi di daw film yi di daw di daw sama bopp di daw bon voilà xam nga lu la bett aussi man la parce que. sonné parce que vous étiez déçu qu'il ne euh, parce que vous étiez soulagé qu'il qu'il ne se présente pas. xam nga nit soo ànd moom man sama conception loolu la c'est-à-dire ànd ak moom euh, li leen liyee du lu du politique peut-être politique mujj fraternité c'est un sens presque familial. doo mën a nekk ak moom taxaw fi nga war taxawee di xaar loolay soulager ak loolu du soulager man la chose qui m'a toujours soulagé mooy tamit Macky xam nga dafa may dimension dimension Macky mën na wax ak yow ci bët xool la rek soo ko xamee baax mën na wax ak yow ci bët li ma doon soulagé mooy mu yaakaar ma fenn ni mën naa fa taxaw xeex fa ah, ma xeex ko ah su ma ko déggaatee ah xoolal mu ne ma bravo loolu moo ma doon soulager mais du loo xam ni ci ay calcul parce que soo nekkee ak moom ci yenn fànn yi évidemment xam nga nit ñi di ñu bare te wute Macky Sall njaboot bu nu ñu koy ti bare catégorie la yor mais am na ñu nekk ak moom parce que intérêt matériel la non bu leen ko reproché loolooy àdduna loolooy politique am na ñu nekk ak moom intérêt carrière la mënu leen ko reproché am na ñu nekk ak moom parce que dañu nekk ak moom parce que fu ñu dem rek fu mu dem rek ñu topp ko classe yaa xam mbay gi classe Abdou Mbow consort am na fi ci parti bi donc il faut nga am yaatuwaay dënn il faut nga am pa esprit bu tëju mais nga mën comprendre kenn ku nekk catégorie am te xam nga ci njëlbeen parce que Macky Sall aussi nitu du nitu littérature scientifique la donc euh, teg fi mu jaar soo déggee mu ne alliance alliance la créé c'est une alliance alliance mooy lan ñoo xam ni peut-être normalement mënuñu toog bokk bool mënuñu bokk ci kër munuñu bokk grand place nga boole leen ñoo ñëpp dañuy fàtte kenn ku nekk seen contradiction parce que yaa ngi seen kanam loolu mooy APR quelque part dafa nekk nit ñoo xam ne dañuy wute jaar seen jaar jaarul lenn mais benn point de convergence la ñuy am mooy Macky su taxawee ñu fàtte seen ay dissension wala sax ñu exprimer ko seen kanam ci kanam Macky Sall kooku arbitré ko te arbitrage bi en muy ñaar wala muy ñetti pàcc ku nekk da nga ciy d'accord donc moom référentiel bi la loolu pour man sama gis-gis du jàng moo ko may du leneen ak leneen yàlla moo ko sol ci moom